salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi si wul seen site internet bi di 24 actu ñu desiwaat ak yéen ci seen naafilay weeru koor yi tey nag mu nekk guddi fukkeel gi ak juróom-benn ku ci julli ñaari rakaa an bu ci nekk fatiha benn yoon isaa zulzulati fukki yoon ñu bamtuwaat ko ñaari rakaa lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon isa zulzulati fukki yoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi